mais vraiment démb li ñu gis stade dafa mel ni dafa am faveur boo xamee dañ koo tegal ASC Salamine muy lan muy boo dee xool ci mais courante bi dañuy tere képp ku dul dirigeant wala képp ku dul délégué waru faa waru faa dugg il a fallu que ñun démb 23 yi ñu may pour ñu dugg ci main courante bi muy joueur et dirigeant. booy toog suñ ginnaaw saaga nañ ñu lu nekk wax nañ ko mais dañoo dañoo dañoo teg leen seetaan ndax li ñu yëndu woon jàmm moo ñu yëndu mais gis nañu vraiment ah ñu ci interpellé surtout le président de la zone Pape waaw mel nii moom mu ngi doog am burkaat lii moom mu ngi doog am burkaat doon nañ ko dégg dégg nañ ko fenn ndax gis nañ ni juboo fubal naag wàll daan lu mel nii mu def ko fubal naag juum pendant une semaine chaque jour bu ñu xëyee dañuy jóge seen kër yi dem juum taxaw ba un vendredi keroog vendredi fa laa jullee ndax man j'ai j'ai des am na ay parents yu bëri yu nekk koo xam nekk jour boobu dañuy julli juma police dafa taxaw dañ ne asalaamaaleykum juma bi yar yi commencé dalante ci biir ndax dañuy ñëw rax la pour yàq hmm. mais nag ah ñun li ñu leen wax rek ñun daal li ñuy wax ni les autorités les autorités compétentes commençant par gouverneur préfet wàcc ci waa ODCAV wàcc ci zone bi ñu leen di wax ni nañ jël seen vraiment nañ jël seen responsabilité ki lii nga xam ne am na. ndax lii du lii defar nawetaan mi ngi koy def dañ ko def pour kaf fo ak ree mais nawetaan defuñu ko pour violence mais gis nañ ni lii lii am tey jii suñ suñ ko fajul dina dina dina dina ëpp loxo te bu ëppee loxo nag dañu dem ba un certain moment pour dina ñoom duñ ko mën dara. liñ liñ leen di ñaan daal moom mooy nañ ci taxaw. jéem a seen nan lañ ci taxawee noo xamante ni dinañ apaiser les cœurs jéem a fee injustice bi nga xam ne moo am ñu gérer ko ndax li ñu yàq ci koñ bi dafa bëri teg nañ fi ay oto am na am na ay xale ñu fi gaañ am na ay nit ñu fi gor am na ñu fi xaañ sànq suba rek tout récemment am na benn booyam bu mu ñëwee fi maa ko doon photo digal bi les nga xam moo nekk moom sama kër sama petit frère otom dañ koo kaayaase la maison bi ñu ñëwee li fa fekk ci ay xeer bëri na yëpp vidéo vidéo yi ak la ko jox peut-être suñu la ko joxee soo monté sa kii di des portable volés waaw peut-être yooyu dafa doon loo xam ne mënuñu koo gis mais yooyu yëpp am na fi mais nag ce qui ce qui va suivre mooy lan collectivement l'ASC dina porter plainte bu porter plainte ba pare on demande le chef de quartier de Mbour 4 de porter plainte aussi ndax mu ngi fi woon sànq waaw bu weesu lu weesoo tamit nañ wax ñi nga xam ne ñoom lañ yàqal wala lañ jël seen àllal individuellement nañ bind seen i plainte ngi déposé ko. di wax ni démb li am stade entre Mbour 4 ak euh, jibo lu ñëpp di ñaawlu la. parce que football avant tout boole la fo la donc bu ñu demee nag ba mu jéggi loolu nekk ci yenn actes yi parce que démb li xew nañ ko wax banditisme la banditisme la parce que supporter yàgg naa am problème ak moroom supporter am nu mu jëfee mais bàyyi ba ay nit tëdd nga dem seeni kër di sànni ay xeer loolu acte de banditisme la te loolu c'est ak condamner ñu nag ay kilifa la ni ñu ko waxee ni ñu yore fi ay njaboot yu dëkk mburkaat loolu yaa amee suñu yenn njaboot yu nekk Cité donc li mën a am jàmm lañ ciy woote sànq wax naa ko sunu njaboot yi dañoo duggante sunu xale yi yenn saa yi am na ñoom dañuy jóge fii football yi jubóo am ñuy jóge jubóo ñëw football fii la preuve le capitaine du jubóo Ismaïla Niang daanaka maa ko tette ci football. démb acte bi li muy miti miti situation lu miti bi match bi jeex dama ko woo waxtaan moom defal ko wàññi ko football la donc defe naa ni nit ku responsable bu nekk loola war a def bi match bi avant muy commencé. man pour ma dugg en tant que directeur technique i a fallu que ma woo Pape Sarr war ni ko OPA dañoo téye ci bunt bi OPA bi ñëwee dañ dafa yot jot ay directives yu jógee ci Pape Sarr pap Sarr dong moo mën a liggéeyanti loolu bi ñu ko laajee ci directives yi waxuñu ko mais bi ñu duggee ci biir ni mbir yi déroulé mën nañu xaw nañoo comprendre parce que fi ñu toog ñun on était que trois à quatre personnes mais derrière nous il presque quinze dix minimum dix personnes yoo la ñu bokk. donc lu tax ñu bàyyi ñoo ñëpp nekk ci ginnaaw ñun ñu may ñu trois à quatre personnes loolu question la muy posé di ci interpeller le président de la zone nekk moo nañ Pape Sarr loolu parce que on ne peut pas avoir un poids deux mesures kilifa nga kilifa ngeen da ngeen def da ngeen yemale ñëpp muy jiwa muy mburkaat muy yeneen bu fekkee daa lu war a ñëw na dal ci ñëpp donc loolu lañ leen di interpeller beneen bi mooy am na loo xam ne nit du ko accepté nga ñëw yàq nu la neexee man personnellement yàqal nañ ma mais c'est pas grave la garaawul mënoon naa demee na neen damay sant yàlla bu baax le fait que xale yi nekkuñu fi parce que yàlla moom du juum samay karo toj nañ ko moo ngi nii toj nañ samay làmp karo yaa ngi nii toj nañ ko yemuñu ci toj ko dañ ko sàcc parce que bi ma xoolee karo yi am na dañ ko jël yóbbu beneen bi dafa am sàcc bi may ñëw dugg ci oto ñu naan ñi waa jubóo lañu wala waa mbuurkaat ma yor sama téléphone am ko may woo instant may dem bay woo sama xel ñaaw parce que yàgg nañ ci milieu yooyu ma téye sama portable ba am na benn boy dafa dugal loxoom pour jël portable mais bi ma nee nii mu daw démb bi ñibbi si exactement damay bañ a jiw mais xamutuma ban mais ay côté peut être 11h bi marché bi jeexee en tout boobu la ñu ñëw dañoo wiiri pour ñëw donc yooyu le football jarut maintenant ku nekk fa mu nekk na yar njabootam. nekk président commission sportive bu AIC Mbourkat. waaw ah, donc comme ni ko Sénégal gépp gisee gis ko ci vidéo yi daw ci réseau sociaux yi. Euh, ci match bu ñu amoon démb mu opposé ñu ñun ASC Mbour ak ak ASC Setalami Jubo vraiment ñu commencé woon match bi ci jàmm mais ñu gis ni bi ñu demee ba match bi daw tuuti équipe bu mag boo ko commencé sonal mu am ay doute ci boppam dina am ay jaxasoo looloo waral ñu tàmbale ñoom bëgg a yàq match bi si niñ ko tàmbalee nag mooy tàmbale ñoo sànni ay tàngal ak ay yeneen daal donc loolu délégué de match bi si boppam moom jël naa ko ci seede am na ci yoo xam ni moom laa ko jox ah bi ñu demee noonu nag ba ñuy mi si lañ ñu sotti nag saw mbaam si sunu ban loolu aussi ñun bu ñu fa nekkee mënatuñoo toog benn instant moo instant bi ngeen gisee ñuy sotti ndox noonu parce que banc bi dafa xeeñ ba kenn mënatu faa toog bi ma woowee délégué de match bi ak la président bi fa nekkoon di assister match bi mu ñëw constaté ko ne ma lépp jël nañ ko bind nañ ko foofu la jafe-jafe yi tàmbalee ñun si li ñu jot a dund ci terrain bi. waaw Mbourkat yaakaar naa bi bi ngeen ñëwee Mbourkat yéen ak seeni i image dèjà démb am na image yoo xam ne jotoon nañ ko jël ndax ñun dèjà bi ñu nekkee stade euh, xew-xew bi fi am fii lu ñu waxtaanee la ñoom ñoom ñu ko def muy supporter ASC Jubo yi dañ ko waxtaanee ndax boo gisee yàqu-yàqu yi fi am ñun daanaka ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci match bi. balaa mat match bee jeex woo nañu ne ñu am na ay mbooloo mu baree baree baree bari nekk ay ndaw yor ay yat yor ay jaasi ak ay xeer di ñëw di saccage koñ bi yàq ay di sànni ay xeer ci ay kër yàq fi oto jël fi ay alal yu baree bari am na oto yu ñu yàq fee tijji oto bi jël batterie bi dajeeg ay nit agressé leen jël seeni ay téléphone gaañ fi ay jigéen gor fi ay nit ba yaakaar naa ñooñ ñu ngi hôpital am ñoo xam dañ leen a yóbbu woon clinique Koumba par la suite lañ leen évacuer hôpital régional xam naa incha allah bu ñu paree fii daañu fa demaat xool seen wér-gu-yaram fu mu toll ndax ñoom son nañ